déglul ma wax waral tukkeem ba kon nga siyaare ko baam ca yool ba Cheikh Ibra Mbàkke ne ca wa la baam ba ñëw fa moom digal ko yoon wa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit bokki taalibe amaan nañ mbégte toogaat fii ci jataay bii nga xam ne ku jàkkaarloo ak jëmm ji di cheikh Mahamadul Fadal moom cheikh Ibrahim moom Serigne Touba Xaadimu Rasul xam ne toog na ci ndigalul kilifaam di sëriñam di sëriñ Ndaam Abdullahi moom Serigne Ibrahim moom Serigne Touba Xaadimu Rasul ñu gën koo meen ci Serigne Ndaam attam mu jëlewaat ndigal nag ci Serigne Touba cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér ne bis bi nga xam ne moom la cheikh Ibrahim Mbacke. doxi woon jéego yooyu nga xam ne ku déglu bayit yi jiitu xam ne ci ndigalu Serigne Touba la ko jege woon àggale ji Serigne Touba Xaadimu Rasuul lam ko diggal ca kongo ak ca Mayomba te ba mu fa demee kat ñëpp gis nañ tegtal ya ak la nga xam ne mooy waxi Serigne Touba waxi Serigne Touba tey jii mooy waxi ëllëgam mooy jëfi ëllëgam dara du ci dañ loolu moo tax nag bis boobee nga xam ne ci la jëloon diggal ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul ngir mottilil ko jéego ya ba dem bitim réew dem Gabon dem ci barab yi Serigne tubaa demoon yëpp ba dellusiwaat fii ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru kor wi di amee nag ci Mbàkke Bari këram gi nga xam ne ba Serigne tubaa di jog foofee la jóge woon ci Mbacke Bari Jolof Cheikh Ibrahim jóge ci Mbacke Bari Mbacke Bawal fanga xam ne fa la Serigne Touba feeñe jamono mu war a yemoo nag ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin bis boobu nag moo tax Serigne Fallou toog ànd ak njaboot gi yëpp ci ndigalul Serigne Daam Atta Mbacke moom Cheikh Ibrahim di ci woo mbooleem njabootu Serigne Touba yëpp nag. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi. ak fu fi waay mën a nekk si di ñu dégg walla nga di ñu gis ñoo ngi lay nuyu te di la ziyaar di la ndokkeel ci weer wi nga xam ne nii ci lañu génn bu ngeen gisee jataay bi nag ñu xam ne kon seeti nañ ci bis ci waxtu fii ci kër Cheikh Ibrahima Mbacke Xaadimu Rasul ngir waajal bis bis boo xam ne niñ ko baaxoo di waxee bisub fàttaliku la di bisub ñaan muy bisub Cheikh Ibrahima Mbacke ibnu Cheikhul Khadim ñu baaxoo ko amal nag at mu ne ci waxtu wii bu ñu waree ba am fukki fan ak juróom-ñaar fee ca këram gee woon ci Mbacke Bari gi ci Bawal bis boobu nag niñ ko waxee bisub fàttaliku la bisub ñaan waaye dañ koo jàpp ci bis bi nga xam ne ci la fi jóge woon doxi jéego yooyu nga xam ne moom la ne moom la ko Sëriñ Tuubaa santoon ngir mu toppal ko ay tànkam lil ko ati tukkib géej gi boo xam ne sëriñ beeg ko sant defal ko tawféex yi itam mu dem defe ko nag ko sëriñ bi sante woon ba dellusiwaat fii ci réew mi mu jóge woon fi nag fukki fan ak ci weeru euh, fari wi ñibbisi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru tamxarit mu tolloog net diir bi nga xam ne moo desoon ci juróom-ñetti at yi nga xam ne moom la sëriñ bi wax ne moom la diggee woon ak boroomam bis boobu nag ñu xam ne kon moomunu ko dañ fee féete li leen ko taxawul waaye noog murit yi ak jullit yëpp a ko bokk waaye rawatina njabootu sëriñ Touba gi kon ñi ngi tàmbalee woote boobu ci njabootu cheikhul xadim gi ci njabootu cheikh Mouhamadul Moustapha cheikh Mouhamadul Fadil cheikh Mouhamadul Lamine cheikh Mouhamadul Bachir sëriñ Abdullahi cheikh Abdoulahat sëriñ Abdoul sëñ Saalihu sëñ Chouaïbou ak cheikh Mouhamadul Mourtala ak waa kër sëñ Abdou Samad ñoom ñoo ci jiitu ndax noog ñoom noo ko bokk. noonu itam lañ koy àndeek euh, njabootuk sëriñ Tuubaa gu jigéen gi ñu commencé ci soxna Faati Ja ba ci soxna Maymunatu Soxra waaye noonu itam lañ ciy wooyee di ko fàttali bokki sëriñ Tuubaa yi euh, ñi nga xam ne ñoom la bokkal kër sëñ moor Anta Sali yëpp ñoom itam kenn gënu leen ca yey ñu ngi koy ànd ak ñoom te leen ko fàttali di ko fàttali waa kër maam Balla Aysa mboolem ku ko sëriñ bi bokkal ñu ngi la koy fàttali di ko fàttali mbooleem ku bokk sëriñ bi maam noonu lañ koy fàttali itam askanum bu soobee yëpp waa kër sëñ bu soobee ak dul ñoom rek ñu ngi la koy fàttali di xam ne noog ñoom noo bokk bis bi ñu ngi leen ciy woo te di leen ko yëgal noonu lañ koy yëgalee itam di ko fàttali mbooleem seexi sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ñooy jëwriñu yoon wi àndoon ak sëriñ bi liggéey bi ba fu mu yegsi tey jii ñoo ko fa yegsil ñu ngi leen ciy leen ko fàttali leen wax ne bis bi seen bis la ak umma islamique bi yëpp nag kenn desul mbooleem kuñ bokkal diiney lislaam ñu ngi la koy fàttali di la ko yëgal waaye ñu ngi koy yëgal itam waa réew mi yëpp di ci woo ñëpp di wax ne itam bis ba bisub ñaan la bisub jokk bokk la bisub alxuraan la bisub xasida la kon ñu ngi ñaan di fàttali ñëpp képp ku man ñëw ànd kook ñun nu ànd ñaan ya ak lañ cay def ci lu baax alhamdulilah koo xam ne nii itam yàlla mën loowu la teew gi la nga man ci ay ñaan ak jàng alxuraan ak salaatu ala nabi xasida nga def ko ngir jëmmi borom bis bi kon loolu sëñ baa ngi soññee bu baax ndax mooy illay bis bi ndax bisub ñaan la waaye bisub fàttaliku la ah noonu itam la ñuy waxee ne sëriñ bi nee na mbooleem taalibe bu aju ci kër gi te Cheikh Ibrahima di sa bunt mi ngi lay digal boo ko mënee foo mën a nekk nga bàyyi la ngay def te ñëw nu ànd liggéey bi ànd bis ba ndax bis bi seen bis la kenn waru leen caa jiitu la koy nos di ko yéwénal loola ñoom mi ngi leen ciy soññ bu baax di leen ko fàttali moo dem foofu taalibe bi nekk di wax ne bis boobu itam dees na ko waajale bisub xasida ak alxuraan boo xam ne xëy na dañuy jàpp bis bu gën a yaatu bala ñuy yegg ca bis ba muy altina ji koy jiitu war a tombeeg le 17 incha allah danañ daje fii ci kër gi ci jumaa ji ànd ak mbokki taalibe yi ñu jàng fi alxuraan jàng fi xasida jagleel ko borom bis bi ak mboolem njabootu sañ Tuubaa yi bu ko defee bu ñu demee ca bis ba itam nañ ko xamee daa ñu xëy nekk ci njàngum kaamil ak alxuraan sëriñ bi dina ubbi recevoir gan ñi euh, nu nekk ci loolu ba xëy na bëccëg bi ñu def wàllu bernde yi julli ngoon gi itam am na conférence bu ñu fa daan def ngir yaatal liggéey bi ak berndeel nit ñi ci wàllu xam-xam ak liggéeyu Cheikh Ibrahim mi nga xam ne moo tax ñu woote bis bi suñ ci doxee nag ba julli timis ba noppi incha allahu ci lañuy ñuy def cérémonie religieuse ba nga xam ne sëriñ bi dana génn ànd ak ay bokkam ak mbokki taalibe yi santante gërëmante dénkaane itam li nga xam ne nii moo moo moom la war war koo fàttali ci diggam mag eh, ñi nga xam ne nii ñoom la ko seqal autorité yi Touba gi lañ koy tàmbalee ci meeru Touba bi nga xam ne naka jekk daanuñ ci jàppale muy Abdou Lahad Ka ak équipe bi nga xam ne moom la àndal waaye meeru Mbàkke itam di doom ci kër gi di taalibe ci kër gi ah, bis bi naka jekk bisam la mu da yàgg di ci am yéene daan ci jàpp moom itam ñu ngi ko koy fàttali ak mbooleem rek niñ ko waxee képp koo xam ne daal luy tax bis bi yéwén ah, jekku nga ko ñu ngi la ciy fàttali di la ci woo. kàddu yi nag ma ngi jëm si ñun taalibe yi ñi nga xam ne bii ñoo aju si kër gi eh, ñi nga xam ne bii ñoo aju si kër gi nga xam ne lépp loo xam ne lii moo war ci liggéey bi ñun la war kon nag sëñ bi dafa wax ne képp koo xam ne kii taalibe nga boo xam ne bii si kër gi nga aju euh, lu commencé euh, ca euh, altine bi nga xam ne bii mooy semaine bi nga xam ne bii mooy aljuma ji moo say mujje képp koo xam ne kii ab taalibe nga ak foo mën a nekk ña ngi lay woo pour nga bay itti boo mënoon a am pour nga ñëw ci màggal gi kenn ku si nekk nag bunte bu nga xam ne bii moom nga war a jaaree dem ci Serigne Touba mooy sa bés boobu mooy sa bés kon ñun bésu sëñ ibrahim Mbacke bi ñun ñi nga xam ne bii sëñ Ibrahima mooy suñ bunt ci Serigne nee na bés boobu mooy suñ bés kon képp koo xam ne ki ab taalibe nga ak fépp foo mën a nekk na nga dagga say itte ti nga ñëw taxawu bés bi te mu si dollee soñña it taalibe yi nga xam ne wa ñoo nekk mbakke nga xam ne gan yi tey si ñoom la ñuy ñëw nee na nun ko doon defee it ñu ngi leen siy dollee soññaat eh, ñu ngi dolli soñña it ñëpp koo xam ne kii seqoon nga ak sëñ daam maanaam boo aju ci kër gi it ngay taalibe boo xam ne bi da ngay liggéeyal sëriñ Touba te aju ci liggéeyal sëriñ Touba te seqoon ak sëñ bi loo xam ne lii mën nga ñëw jàpp ci bi sëñ Ibrahima nga jàpp ci eh, ñoo ngi ci yokkee nag di soñña waa daayira Dakar dem dikk bi nga xam ne bi Moussa baan moo ko jiite nga xam ne dafa am kóllëre goo xam ne gi dan ko seqoon ak sëñ bi fii ci kër gi ba sëriñ ba ne seen kóllëre gi de danaa ko sàmm sama digganteeg yéen ba ci këram sëriñ Touba te jàpp naa ne kóllëre foofa la mën a yem loola la ko waxoon kon nag sëñ bi nee na ma ngi leen di soññaat ci kóllëre googu di leen fàttali bésab sëñ Ibrahima Mbacke bi nga xam ne bi war na koo def li nga xam ne moom lañ si yokkee sëñ bi dafa wax ne maanaam guddi gi sëñ Xaadim Gueye moo koy jàng ak sëñ euh, Maguette Fall bu Ndar ñoom ñooy fanaane jàmm gam fanaane jàng xasaayid yi ci turu suñu kilifa di sëriñ fallu Mbàkke Ibrahim bi nga xam ne kàddu gii may waxe ak kàddooma moo ma jox ndigalul ma wax ci kàddoom sëriñ fallu dafa wax ne sëñ bi jox na ko ndigal ne mbooleem taalibe yi seenu barkeelu ci liggéey bi nga xamante ne ni mooy université tubaab yi nga xam ne mooy ndigalul seex mun seex seex Muntaxa Mbàkke sëñ bi nee na bañ màggalee ba ca suba sa na ko ñëpp daal di indaale ñu barkeeloo ko ndax sañu war a dem siyaare ji sëñ bi yóbbul ko suñu suñu suñu liggéey képp kuy ñëw ca bis ba na nga ko bàyyi xel te indaale ko buñ màggalee ba ca suba sa ngay indi teewal ko ci sëriñ Fàllu bu ko defee boo ko teewalee buñ bis bu ñuy siyaare ji ñu daal di koy yóbbul sëñ Muntaxa di leen fàttali bis bisub Cheikh Ibrahima bii nga xam ne bokk na ci ndigal yi nga xam ne ah, ci ndigali Seyxul Xaddim yi la muy bis boo xamante ne ni saa waxtu wi jotee danañ leen ko fàttali fas yéene itam at mu jot muy gën a jëm ca kanam ñu am yéene nu mel ren bu déwénee mu mel na ko raw di leen ko yëgal di leen ko fàttali di ci jiitalit ci ñi nga xamante ne ni ñooy wàll geneen wàll gi le président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall waaye di di ko yëgal euh, Moustapha Niass président assemblée nationale di ko yëgalit soxna Mimi Touré président conseil économique et social di ko yëgalit ay ministre am ku demee ni maître Youm ak ku mel ni Abdou Karim Fafana di ko yëgal mbooleem membre yi gouvernement bi di ko yëgal itam le gouverneur de la région de Diourbel di ko yëgal it ak sous préfet ak maire Touba di ko yëgal mbooleem kilifa yi waaye sëñ bi daal lim leen di yëgal mooy mi ngi leen ci woo te it di leen ko fàttali te it bëgg mbooleem képp koo xamante ne nii mën nga caa teew nga teew ci njàngum alxuraan bi mi ngi koy fàttali ak njàngum xasa xasaayid yi parti opposition yi ku mel ni maître Ablaye Wade mi nga xam ne xaritub sëñ bi la maître Madické Niang mi nga xam ne doom la ci kër gi ak ñeneen ñu demee ni ñoom bàyyiwul kenn fàttiwul kenn jërëjëf euh, bokk yi ñoo jot a dégg kàddu yi fa tabaarakallaahu mat na Cheikh Mahamadoul Fadal nee na ci ndigalul kilifaam mbooleem kuy wax ashhadu an laa ilaha te ci biir réew mi ak tarixa ba mën a bokk mi ngi ko yëgal waaye di ko yëgal it mbooleem koo xamante ne bi yor nga daaray alquran fu daara ja mën a ne mi ngi sàkku ci yow nga jiitalal ko njàngum alquran mbooleem daayira yi Serigne Touba yi nga xam ne nag ñoo ne ci biir réew mi ak bitim réew fu ab daayira mën a ne Serigne Fallou nee na nga xam ne bis boobu sunu bis la ñun ñëpp ñoo ko bokk kon nag nee na mi ngi am fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru kori bi dëppoo ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru tubaab di di amee ca Mbàkke Bari nee na nag ma ngi ciy séentu bokk yëpp di ci sentu xarit yëpp di ci sentu wëllëre yëpp di ñaan képp koo xam ne teew nga fa la Serigne tubaa jële woon ca tukki Maayomba ba la Cheikh Ibrahima jëlew ci mottali jéegooy Serigne Touba ya yal na la ci yàlla tibbal ba nga doyal sëkk wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.